ألا عزموا إلى الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدو nga xam ne yow jàkkaarloo toog doomu aadama ki nga jàkkaarloo kan la moom la ñëpp di laaj ak mu bërëb mu cof ci suuf si raay ci ñaari loxoom xool foo taxawee barke ci Tuubaa yëkkati benn bi ci kaw wàcc benn bi ci suuf xaañ góos xaañ duraat nga doon ko jël mu caxabal la maamu dëbb la naax mu xeere xeere bi barke Seex ma oh Balla sama waa ji nag jox ko ma tur bi. c'est qui euh, là. c'est petit là. <laughs> non lui c'est le petit. c'est le petit promoteur. oui il a dit quoi. il a dit que tu il veut que tu le rends tu tu lui rends son nom. oui je connais quelqu'un c'est pas lui ah. non c'est pas lui je connais pas. yii français il était poli. non il est poli le gosse. ah il est poli le gosse. oui il est si tout. yii kan kii nag il doit def kii nag il il mérite tant de parcades. oui oui. asseyez-vous s'il te plaît. asseyez-vous s'il te plaît. oui. barki Cheikh Moussa asseyez-vous de gëj naa ko dégg jamono yi sax daal di daan fa. sama namay ba nii sama sëriñ ah, ah di siyaar maa jàmm gaa yaa ngi mbëkk di siyaar di joxe addi lii barki Cheikh lu ma koŋ gi. loori ma te fure fure farata alaykal qur'aan lay àndal bu la neexee dem ba ci laaraam ko ilaa maadi am bi mu koy bàyyi faa alxuraan borom kaam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf baa ngi ñoom di ngeen si baa nga yegg si bi caméra yaa ngi tàq ñëpp jën lii xam nga ne histoire dina ko bind ñaar ñaar balla nga ci ko def ñëpp ci monument merci merci No, no, no, no, no. Eu quero uma hora. Precisa de uma hora. tey sama waay et puis dañoo kese couleur yi. waaw mais li gërëm naa. li football dafa sax. bu ne da la yore mont wala deful ko noonu. ah man sax la moo ko wax de. ma ne ko li la yoo mën li ma mën li ma mën yëpp wax naa ko. waaw lan la podi. podi nee naa ko concorde ko répété lépp. walaay dëgg la waaw. podi yi podi buy moom fii podi problème bi lan la. yaa sëñ bi problème bi lan la. montaram lañ nangu. li ma xam ci lu baax yëpp wax ko Balla nee naa ko lu xeere la lu wow kong la konkorong la xeere koy toj konkorong mi gën a wow konkorong ko wax naa ko Balla nag koo mos a bëral dàndoo xañ ko dos dura sa loxo ci kaw wàcc benn ci suuf dëbb naaf jaxabal matuñ doon njool lu ne Balla xamula il la la ko yoo xam ne jardin xale jardin sax làkkuñu ko. may ñu ko may ñu petit montre bi la bëgg jot instant yi s'il te plaît ala azimu laylal wiladati isbatan إذا لم يكن نحو الحرام عدولا عدم ليلا